tey comme ni ñu ko waxee rek ñu ngi nii ci li nga xamante ni moo di mars aar sunu li nga xamante ni mooy ay élection moo taxaw ak kenn koo xamante ni kenn du ko présenté ci réew mi mu di Sankara frère maa ngi lay nuyu. maa ngi lay bëggee guy gi mon frère. mbaa yaa ngi ci jàmm maa ngi sant mbaa ni lu waral sa teewaay mais naka nga gisee mobilisation bi nga xamante tey sénégalais génn nañ ko. waaw lii moom li ñu ciy wax rek mooy organiser ay marche moo gën a yomb interdire ko. Mhm. gisuñu fi pneu bu tàkk. Mhm. gisuñu fi kenn ku yàq. Mhm. kenn deewul. kenn tiirewul ay bal. donc yaakaar naa ni li ñu suñu constitution may ci suñu droit muy marche pacifiquement def nañ ko ci jàmm on est des hommes civilisés on est des hommes avertis et responsables boo ñu bàyyee ñu marche ci jàmm ñoo ñu dem ci jàmm boo ko deful ñu xeex ak yow mais ñu gis ni tey marché bi franchement dafa organisé wu ñëpp a ngi dox ñii naan dox ñii di yor seen mouchoir mu nekk lu civilisé ça veut dire que ne sénégalais yi nekkul ñoo xam ne aussi tamit dañoo violent non sénégalais yi ay nit yu jàmm lañ ñu jàmm rek la ñu bëgg mais boo ñu bëggee sës si miir ñu war suñu bopp tey tey wane na ko ñaata temps marché yu fi mos am dañuy xeex ngay dégg ay mort dégg ay cassure dégg économie bi dëkk bi di tàkk mais tey bañ ko autorisé gis nga fi dara kenn gisu ko fi moo tax fi mu ne nii nag sénégalais ay nitu jàmm lañ mais ku leen puus ñu gar seen bakkan aa naka gisee euh, li nga xamante ni mooy détenu politique yi nga xamante ni démb ba tey ñu ngi leen libéré waaw waaw loolu moom dañ dañ koy rafetlu dañ koy rafetlu mais euh, amuñu ci lu ñu neex parce que bañ leen di téye dañ leen tooñ bañ leen di bàyyi tamit noonu la leen war a bàyyi you know mais li ñu mën a wax rek mooy on continue ñu xippi suñuy bët xool waa ji bukki la bukki lu mu guddi guddi day gis yàpp ah, ah amul leneen yesaay. est-ce maa la gën a kontaan mon a baax di xam ko ci yu réew mi soxlaa dañu koy gis et gis ngeen ko candidat la lépp lu ñuy def itam mu ngi koy def ca fépp fu ñu toog en tant que candidat di fa waxtaane pour luy defar kenn du ko ci ëppale xalaat te kenn du ko ci gën a wax lu rafet ci pour luy defar réew mi loolu dama ko bëgg a témoigner pour que sénégalais yëpp xam ko ci moom xam ngeen ko ci lu bare ci leneen waaye lii itam ngeen xam ni leader citoyen républicain ak ku gëm réewam ak ku bëgg jàmm kooku sëriñ la ma koy ma koy félicité di am mbégte lool mhm. ñu daje fii ci marche bii nga xam ni marche patriotique la marche sénégalais yi la mhm. ñun ñëpp drapeau bi rek moo tax ñu génn tey pour def lii pour préserver suñu démocratie suñu état de droit suñu république pour que ku ñu fi fal nga nekk njiit nga xam ni faluñu la pour nga nekk buur président de la république nga sa app bu jotee rek da ngay dem comme ni ko constitution waxee ñu ñaan itam président de la république mu comprendre ko noonu mu xam ne le deux la appam di jeex balaa le deux lépp lu fi mën a xej te xej na fi ñu def ko pour sénégalais yi am sañ-sañ dem defi seen élection tànn seen président bu ñu tànnee ku mu mën a doon ci ñun vingt candidats yi ñu xam ne sénégalais yi rek ñoo sañ def loolu su ko defee ñëpp ànd ci incha allah réew mi am jàmm uh-huh. merci beaucoup mais mais mais du ñàkk loo xam ne di nga ko lancé wàlle ci drone politique yi nga xamante ne vraiment libéré nañ leen démb ba tey démb presque ba 4 heures du matin 5 heures du matin ñii ngi taxaw rëbës ñii ngi taxaw fële nga xamante ne mooy campénal di xaar drone politique yi naka nga gisee loolu waaw xam nga loolu lu ñëpp di rafetlu la parce que koo xam ne waruloo woon dem kaso mm. buñ la yóbboo kaso ci ay weer te kenn jugé wuñ la mm-hmm. mënuñoo wax ba tey lan moo tax ñu téye la fa mm-hmm. ñii seen liggéey yàqu ñii seen i kër tas mm-hmm. ñi seen doom euh, seen jàng yàqu ñoo ñu bu ñu leen libéré sénégale yëpp dañu naan alhamdulilahi rabil alamin parce que am na ci ñoo xam ne ay xale lañu defuñu woon dara wax dëgg yàlla ñooñu nag bu ñu leen bàyyee rek dañu koy rafetlu waaye nag luñ ci def rek nañu ko xeeb nañ ko yokk parce que ni politique yi dégg naa bàyyi nañu une centaine waaye am na milliers yu ci des yu bëree bare nga fa ña ca des ñoo ëpp ñoo ñu nag nañu leen nañ leen génnee ñu libéré leen ñu ñibbi seen kër loolu mooy li askan wi bëgg président Macky Sall bu mu ko jéem a def ay conditions bu mu ko def négociation bu mu ko def ci dialogue mhm. amul benn condition ñoo leen jàpp dugal leen fa te teguwul ci yoon nañ leen libéré ñu ñibbi seen kër nañu libéré Sonko nañu libéré Diomaye nañu libéré maître Moussa Diop nañu libéré leader société civile média ñëpp ñu ñu jàpp nañu libéré anonyme yi nga xam ne ñu nga fa xale yi ñu jàpp te kenn xamul ñen la mhm. ñi nekk dakaar comme ñi nekk ci biir région yi nañ leen libéré ñoom ñoom ñu ñibbi seen kër bu ko defee ñi ñi dowoon aussi ñi demoon exil Sénégal kenn xalaatul woon ni réew mi dina am exil exil boobu nañ ko bàyyi ñu dellu si ci réew mi ñu ubbi leen buntu yi ñu dellu seen réew ànd ci tabax ko c'est ce Sénégal que nous Sénégal bi ñu bëgg mooy boobu bi nga xam ne jàmm lay am ak lépp nekk ci dal ak citoyen yu yu taxaw takku dëgër pour xeex pour seen démocratie ak njiit yoo xam ne dinañu respecté loi te tënku ci loolu mooy li tax a jóg tey nit ñi ñu leen di gërëm bu baax a baax d'accord président maa ngi lay nuyu waaw maa ngi lay gërëm di am mbégte dajeek sama xarit sama collègue sama jaan ji yàgg nañoo euh, bokk ay plateforme waxtaan mais du jëm ci développement mhm. du politique bi moo ñu boole tey kon tey buñ fi dajee mu bokk ci initiateur yi nga xam ne nii dañ ko dem maa ngi koy gërëm di wax rek ne euh, marche bi am na lu mu wone mooy Sénégal nit ñi violan wuñ léeg-léeg autorités yi ñooy créer violence di ko dóor ci nit ñi kon léeg-léeg bu ma déggee ñenn ñi di def ay déclaration di wax naan ñi ngi woote jàmm jàmm kiñ ñu dénk sécurité moo mën a woote jàmm te tey lii wone na ko ndax autorisé na ko nit ñi dox wax li ñuy wax waat seen kër. li ci ëpp solo rek mooy ah dañuy wax jaloog dialogue moom munta a manqué ci Sénégal waaye nag lii ñu nekk tey warut am benn dialogue bu dul fixé dalu datu élection yi buñ fixé dalu élection yi président ci boppam woote dialogue am mooy nan lay mën a demee ci jàmm li nga xam ne nii moo fi nekkoon ci ay lu mu ragal wala ay erreur mu teg ko ci kaw nit ñi wax ko mu leer naññi. ah bu boobaa yaakaar naa Sénégal dëkku jàmm la nit ñi nekkuñ fi di fayanto liñ bëgg rek mooy ñu avancer léegi nag loolu président bi ñëwaat nag woote un réconciliation nationale parce que tey jii kilifa di kër kër diine yi tas na ci politique euh, secteur privé tas na ci politique société civile tas na ci politique journaliste yi tas na ci politique administration sax tas na ci politique justice bi tas na ci politique loolu nag dama nekk gom boo xam ne nii lu ñu war a gaaw ñaw la kenn ku ne li nga amoon di dignité bi nga amoon nga delloo ko kii yor réew mi mën ko yor ci jàmm bu paree moom tamit su fekkee def na cinq ans ñu wóolu ko renouveler ko buñ ko wóoluwul andiwaat keneen Sénégal kon ni ci démocratie bi mu nekkoon. mais du ñàkk loo xam ne di nga wax ci dërëne politique yi nga xamante ne libéré nañ leen ba dem ba tey ñu ngi ci aussi tamit. waaw loolu moom xam nga ñun ñëpp ko doon jooy. Mm-hmm. amul kenn ci Sénégal foo foo tànne lu ma 2000 personnes. Mm-hmm. amul benn sénégalais buñ la mënta wax ne la sama mbokk ngi ci biir. kon dañuy jàpp ne Sénégal yëpp lañ tëjoon ci prison yi mhm. suñ leen libéré libéré nañ Sénégal mhm. te loolu wax dëgg yàlla metti na ndax kuy liggéey mhm. di daan doole di jéem dara ah nga tëj ko ça veut que moom mooy yàqal nga ko yàqal nga njabootam te demal xool ñu ci ëpp ñu jàpp mooy ñu doon taaba taaba ñi nga xam ne nii ñoo doon daw di eh, di jaay wala ñu nekk ay menuisier wala ñu nekk di dawal scooter ñooñu lañ jàppoon te loolu ah ñooñu dañ doon xeex rek pour bëgg lu lu lu développé seen réew. looloo tax sax ñu ci bari ci ñoom dañu xamee ne mënatu ñoo manifester wala ñu ñu ragal ñu jàpp leen. ñu dugg ci gaal yi. ce qui est te loolu kenn xamul li dee ci gaal yi da ngay dégg ñu la ay 500 600 personnes mais boo tuur li dee ci gaal yi sax mën na 50 000 personnes kon loolu lu ñu war fexee ne duut fi amati dalal nit ñi ndax yàlla ci boppam bi muy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na ma xoroy si jaamu dane naa ba xiifatuloon fexe naa ba tiitatu leen réew ñaar rek la boo fexee ba sa réew du ñu xiif duñu danañ am lu ñu lekk danañ mën a dëkk ci réew mi ak sécurité kenn du tooñ sa mopp ak jàmm mën a doxante rek réew ma baax na te yaay yaakaar naa yooyu mooy indice de développement yi nga xam ne nii même nation si ni ci lay nattem réew réew moo xam ne nii amul xiif am na xëy et amul tiit kenn tiitul rek kon réew mi dana jëm kanam. Mhm. jërëjëf président jërëjëf jërëjëf merci comme li ngeen ko waxee ba tey rek ñu ngi nii dañuy dox avancel avancel ba tey ñu ngi nii ni ngeen ko waxee dañuy dox ànd ak ñoom ci marche bi nga xamante ni mooy marche xaar aar li nga xamante ni mooy sunu élection donc mu ngi nii fii ci people 221 lay xewee bu leen ko tardé ay sa gars yi la jëli ko